ngeen combat bi nga xamante ne moo doxoon ci diggante Nandi Fall ak Coly Faye numéro 2 euh, mu nekk jurne Sam bu ama am solo riche en spectacle riche aussi en culture ki nga xamante ne moom mooy euh, euh, Coly Faye numéro 2 daan Nandi Fall ñëpp xam nañ ne bi Coly Faye dugg see maa ngi ko doon wax nee naa kii ndam rek la tuus tey gis nga Coly Faye li nga xamante ne noonu la tuusee mais tuus bu jaar yoon lii la ñuy wax tuusu ndam xaw ma nag li yàlla di def mais jàpp nañ ne tuus bi tuusu ndam la parce que da ngay dal xel. gis nañ ne ni mu ñëwee entraînement am dafa tooy tey diis gann ki nga xamante ne moom mooy Nandi Fall euh, par rapport a combat bi mu bëree ak ki nga xamante ne mooy Sokh changé wul changé wul ci yaramam xamuñu ban façon entraînement la doon def mais feeñul même poids bi la indi. daanu ci indiwaat ci même poids mu doon bëre ku diis tamit ni sox yaakaar naa mënoon na yokk tuuti pois bi yokk doole ji tuuti on n'a pas senti ça mu ñëw bëree ki nga xamante ne yaakaar naa moom moomoon làmb ji tey wane na ni moom moom làmb ji ci tuus bi déjà wane na moom moom làmb ji ci gàllaa ji wane na moom moom làmb ji bi mu simmeekoo ci morphologie bi wane nañu moom moom làmb ji e bëree ko ak sañ-sañ yàlla may kon ndam moom ki nga xamante ne moom mooy Coly Faye euh, numéro 2 ñi koy félicité waat bu baax a baax nee na ki nga xamante ne moom mooy soxla la soxla. foo jëm foo jëm. naan di faal kan la mujjee daan kan moo ko mujjee daan. soxla na ñëw ñu bëre wala booy bawal. booy bawal wala soxla. wala soxla ñëw ñu bëre. am na ci droit naan di faal na reculer waat xoolaat boppam xool nu muy entraîner làmb jaa ngi tëj na préparé wu. parce que Grand Yoff moom moo fa nekk jamono yii ñu toll mu waajalaat boppam bu baax a baax a baax ci entraînement ci lépp daal di dellu siwaat mbër bu mag la alors mbokk yi lii lañ leen indiloon fi nga xamante ne moom mooy stade Iba Cheikh Omar la woon ànd ak Dany le meilleur des meilleurs peace